donc mu ngi noonu mooy nekk euh, première actualité bi ñuy waxtaanee Abdoulaye beneen bi ci topp démb gis nañ kii di euh, président Bassirou Diomaye fay daal di dem euh, dem seeti li nga xamante ne moom mooy première bari la mu ànd ci ak ministre am mooy Birame Souleye Diop noo jàngatee loolu la nee nañ c'est le c'est le c'est le meilleur président daal li ma ko doon jàngatee mooy dama jàpp ne Bassirou Diomaye Faye maintenant comme président Macky Sall dafa liggéey Sénégal liggéey mm-hmm. léegi shooting lay def shooting waaw <laughs> mën a dem photo wu non ah gars yi dugal ci réseaux sociaux yi voilà pour moo dem parce que tey nga ñëw fekk un président boo xam ne uh-huh. président Macky Sall 1960 la ñu am indépendance mënuñu exploiter pétrole Sénégal président Macky Sall nekkoon ingénieur ci loolu depuis Abdou Diouf ne fi mu dem di ci conseiller au niveau de Petrosen ba yàlla def ko muy directeur général Petrosen nekk ci ay gouvernement mënuñu fexe ba góorgóorlu ba exploiter Bassirou Diomaye Faye bi mu accédé au pouvoir fekkul sax deux euh, un an wala deux ans pour ñu commencer excavater pétrole mm. balaa muy def soixante quinze jours lañ ko génneel premier baril pétrole yamu ci président Macky Sall centrale électrique gaz bi ñuy exploité Sénégal président Macky Sall pare na centrale électrique bi nga xam ne mooy transformer gaz bi courant war a produire quatre cent trois cent quatorze mégawatts pour ñu dugalaat ko Sénélec ginnaaw Il a ko 500 MW, 52 ans. le Sénégal a produire 500 mégawatts le courant boo a fait, ci ngelaw lañ koy defaree le courant bi ñu defaree ci barrage Si le courant bi ñu toggee ci pétrole c'est 500 mégawatts le Sénégal a produire pendant 52 ans. Abdou Diouf 5 ans, 40 ans 12 ans d'Abdoulaye Wade président Macky a le mu ñëwee ak Baba a directeur ASER ci politique énergétique a nañ courant 1900 MW. léegi bi ñu ko yóbbu 1900 mégawatts centrale électrique bi ñu tabaxaat mhm. eh, buy transformer gaz bi dina produiraat 314 mégawatts. Mhm. loolu bu ñëwee sénégalais bi benn. Mhm. sa gaz su dëkk bi nga moomal sa dëkk moo lay toggal courant. beneen courant bi président Macky Sall fexe na ba di la ko jëlee ci jant bi. beneen courant bi pétrole bi ko war a def ci sa réew lay jógee. beneen courant bi di jóge ci sa barrage ndox beneen courant bi di jóge ci ngelaw li. kon jàpp naa ne kanam boo leen gisee courant wàcc ci Sénégal ngeen xam ne li président Macky Sall moo ñor ba Sénégalais yi di ko jariñoo hmm. mais jàpp naa ne président Bassirou Diomaye Faye bi mu demee foofu waroon nañu dimbaliwaale jàllal ñu ca pipeline yi nga xam ne Ousmane Sonko waxoon na ne président Macky Sall def na ko ci biir géej gi di sàcc pétrole bi di ko yóbbu bitim réew hmm. parce que fu Bassirou Diomaye Faye dem rek lii maal mooy la Ousmane Sonko waxoon foofu parce que bu nee président Macky ci Sen la ko defee woon. Hmm. ba sax journaliste bi naan ko est biir pour di sàcc pétrole di ko yóbbu bitim réew man nag boobu bi Bassirou Diomaye Faye paree foofu damaa bëggoon mu jël ànd ak Birame Souleye Diop dem ba gis tiwa yi Ousmane Sonko waxoon ne moom la ñu wër a ñoom bu fekkee tiwo yooyu ça n'existe ah, pas parce que tamit loolu moo lay wax ne soo falee premier ministre boo xam ne il est un peu mel benn melokaan bi mu fal la comme saa foo dem rek dañuy génnee ci sa biir coalition parti politique sa waxi démb joo xam ne rafetul woon tey bu ñu demee naan président Bassirou Diomaye Faye mooy meilleur président ndax dafa dem seet yi fu président Macky defar ba pare ba ñu war ko exploité ci moins de 72 jours bi nga bi nga faloo nga dem fa di falu moom ba war na taxaw sax jël parole jaajëfal président Macky Sall ci liggéey bu extraordinaire bi ñu def ba ñu mën a exploité pétrole Sénégal kon tey yaakaar naa ne man Bassirou Diomaye Faye yaakaar na El Malick dem na def shooting ci gaaru ceer bi bëgg régler problème transporteur yi mais ba duggee yàlla may na ko ba bisu Dakar dem dikki ñoom taaloon nañ ci 100 police ak gendarmerie téye leen ba taalatuñ benn bis bu ñu leen bàyyi woon ñu taal bis yëpp kon Ousmane Al Malick Ndiaye bu bëggee régler problème transport yaakaar naa du am bis yu muy jox nit ñi pour ñu mën a dem malheureusement fekk na président Macky Sall génn ci transport u Dakar ba dugg ci transport régional loolu moo ñu permettre mu mën a am bis yoo xam ne dina ko mën a soumettre askanu Sénégal pour ñu dem nag shooting la mujjee defaat ci BRT bi tamit ñëw ñu pare am ñu am ay bus gazé yoo xam ne président Macky ci doon demandé mhm. mu a photo wujjee mooy ci machine yi nga xam ne président Macky Sall commandé woon mhm. dem taxaw fa ne ñoom ñoo ko commandé sénégalais yi vaar ko defe naa tey jii ñoom bu ñu génnee tontu sax ñun ñuy wax vaar la tontu ñun dañuy ñëw di rappeler ci plateau télévision yi rek. waar mhm. euh, fi mu toll ci Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye mais Bassirou Diomaye Faye amuñu sax problème bu bëri. parce que mhm. moom lu nga koy gis waar du bëri Ousmane Sonko nag sonn na ba. vaar xaw koo diwini léegi ñun dañ dañ wax ne ko na bàyyi di wax ndax bu waxee moom la ñuy booleeg vidéo léegi dafa mujjee ne léegi na directeur du commerce ak yenn ministre di wax kenn du ko vaar man nag dama la commission vaar loolu nga leen conseillé ñoom. moom nee na kenn mënu ko vaar kay yéen a ngi sonal ah, seen mais Ousmane Sonko moom waxam wax dëgg yàlla nag yow mi toog sax moom day seetaan vaar ba xam. wàññeeku génn taxaw déedéet Sonko du mu ngi liggéey yow Sonko bu ñu Sonko bu ñu ko joxoon téléphone simple ba léegi communication bi changé Sonko premier ministre réseaux sociaux la réseaux sociaux la doon campagne téléphone la doon campagne bi mu ñëwee dafa nekkaat premier ministre réseaux sociaux man damay ñaan Anna Diamanka ak jabar yi comme bëgg nañ seen jëkkër toroxal na leen ba nekk ñu première nañ jënd téléphone euh, simple yi jox Ousmane Sonko mu tàggoog lépp luy téléphone boo xam ne dina mën a seetaan réseaux sociaux bureau bu fekkente ne télé dafaa nekk nañ ko ko dindil conseil des ministres bu fa demee yeneen ministre daañu ko jox évaluation yi pour mu mën a xam fan lay toll mais Ousmane Sonko <laughs> euh, euh, du ton du kenn réseaux sociaux lay tontu maanaam da nga benn responsable APR bu gën di attaqué Ousmane Sonko non pas encore commencé goole te xam nga dañ ko may temps de mais pourquoi pas mu dem grand théâtre ne nañu génn dañ génn fee bëgg dem ñu xàññi leen euh, xaaju la Coromacel te moom miy wax ne dañu sànni xaaju la Coromacel dañ ko xaaj quatre parties maanaam déjà rek xale bu ndaw bi lay déglu en tant que premier ministre dafa lay defe ne la Coromacel mën nañ koo xaaj quatre parties mooy maanaam yaa ngi jàngal xale bi ne ci biir këram fen parce que boo ne la Coromacel dañ ko xaaj quatre parties yónnee ko waa APR ñu daw ci projet Barthélémy Dias bi la bi nga ñëwee police soxla la bu la daan jàpp day toj sa weeru oto pour génne la ragal moo tax nga meloon noonu kon boo ñuy taxé da ragal te ñun defaguñ benn baa jaxate lañ jàpp ci dudul yoon ñu dem di ko soutenir ñu sànni ay lacrymogène nit ñi ay asthmatique lañ man ñii dañ am ay sinusite mm-hmm. duñ taxaw di jël loo xam ne après da leen di posé ay feebar ci seen biir kër mm-hmm. te président Macky Sall li ñu sant mooy nañ opposé man nag malheureusement bi muy joxe ndigal yu mujj yooyu du duñ ma ko nettali maa ngi toog mu toog ñun pendant quatre heures de na ngeen opposé wu opposition républicain maanaam bu leen toj bu leen taal bu leen yàq. Mhm. lu ñu def lu baax apprécier leen. défendre leen les de Sénégal émergent fi mu yemoon ak dëkk yi nga xam ne defal nañu ay postes ba boucler mhm. ko ba mhm. ñu def dara mais ay opposition républicain lañ Sénégal émergent fu mu jëmoon ak Sénégalais yi ñoom luñ bëgg a teg ci réew mi loo xam ne arrangé wul Sénégalais leen wax ne fii lañ jëmoon loolu nag la koy protéger mooy majorité assemblée nationale loolu mooy protéger lool kon ñu ngi xool nan la ñuy liggéeyandoo ak Sénégalais yi ba tey majorité assemblée nationale boo xam ne day protéger l' institution du Sénégal ak infrastructure du Sénégal yi parce que ñoom bu ñu leen waxee nan lañ leen po nan lañ leen protéger les seen réew rek ba li fi li ñu fi tegoon ci lu baax te mu amal njëriñ Sénégal émergent ñi duñu dellu waat rectificatif dindi ko Sénégal yëpp dañu voté pour delloowaat ñu majorité assemblée nationale ñu téye ko pour mën ko arbitrer réew mi ba nga xam ne ke ñii fi ne seen cuune waaye du feeñ ci réew mi maanaam dañuy rek li li li